abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne. plan d'action euh, ci am benn euh, d'abord je le fais en français. oui justement euh, vous avez la grève demain, c'est ça? Oh, je vais laisser le euh, le camarade secrétaire général Ndongo Sarr l'annoncer parce que dans cette plateforme comme on l'a dit tout au début nous avons une pluralité de structures nous avons des organisations de la société civile. euh, donc venant d'horizons divers. Nous avons les organisations syndicales, nous avons le patronat, et les syndicats du secteur privé et public, nous avons également les droits de l'homme. Donc chacun dans son secteur développe une stratégie et il y a une synergie d'action. Euh, donc de façon concertée, cette plateforme-là va, va permettre de coordonner et de faire la jonction avec les secteurs qui sont en lutte. Même les secteurs dont vous parlez seront à un moment donné euh, en rapport avec la plateforme euh, donc des acteurs non étatiques. Donc au niveau du secteur de l'éducation, nous avons notre contribution dans la lutte que nous allons vous euh, transmettre à travers le coordonnateur euh, secteur général du donc Dongosar qui va décliner ce qui est prévu pour le secteur de l'éducation euh, dans les jours à venir. Donc camarade Ndogo, vous prendre la parole. Maintenant ma wax ci wolof ni ñun ñi nga xam ni euh, ñoo fi daje tey dañoo bari fu nu jógee dafa am ñoom ay syndicat lañ am ñoo xam ne société civile bi ñu ngi bokk ci yeneen pàcc ñoo xam ne ay OSC lañ am ñoo xam ne ay imam lañ am ñoo xam ni dañoo nekk ay droit de l'homme ñun ñoo ñëpp ñoo fi daje te li ñu dajale lenn rek la mooy jaay doole bi bëgg am Sénégal ak foqarti moomeelu sénégalais yi pour taxaw yokk sa mandat par force loolu lañ ne du fi amee ñu ne datu élection bi kese moo ñu dajale ñun ñëpp leneen boolewuñu na nañu respecté datu élection bi comme datu élection bi c'est le 25 février 2024 ñi fi daje ñëpp loolu la ñu wax léegi nag syndicat enseignants yi dañoo am taxawaay bu ñu am boo xam ni ki nga xam ne moom lañ désigné suñu biir ñun syndicat yi nga xam ci daara yu lalu yi ak yu diggu doomu ak yu kaweeg yëpp dañ ni ñu jël la camarade secrétaire général Ndongo Sarr bu ko defee mu wax ci suñu tur bu ko defee mu wax lan la ñuy waajal ak lan lañ bëgg def ñun syndicat yi voilà jërëjëf maa ngi leen di yéen ñëpp donc man maa ngi tudd Ndongo Sarr man maay secrétaire général national u CUSEMS alors donc ce sont nos pairs qui nous ont désignés pour que nous coordonnions donc ce cet ensemble de syndicats d'enseignants qui entend dans ce combat pour la restauration de la légalité constitutionnelle mais jouer pleinement sa part, sa partition Et sous ce rapport, nous avons décidé de nous retrouver, nous autres, les syndicats d'enseignants, ce soir à 15h à notre siège, au siège du QSEMS, 6 à la cité Soprime, à 15h. Et c'est pour harmoniser le plan d'action que nous devrons dérouler la semaine prochaine. Mais en attendant, il faudrait que vous notiez dès à présent que dès demain, vendredi à 10h, Nous demandons à l'ensemble de nos collègues, de nos camarades, enseignants de tous les ordres, du préscolaire au supérieur, mhm. nous leur demandons d'observer demain un débrayage à partir de 10 heures. À l'évidence, samedi, nous allons nous réunir pour évaluer donc tout cela et vous serez informés de ce plan d'action que nous entendons dérouler la semaine prochaine et, Dame le disait tantôt, dont l'objectif c'est d'appeler les autorités à la raison, de manière à ce que la légalité constitutionnelle soit restaurée, mhm. parce qu'il n'est pas admissible que dans une démocratie, qu'un président de la République, au terme de son mandat, puisse s'arroger le droit d'allonger, de prolonger comme ça gratuitement son mandat. Cela est inacceptable et avec l'ensemble des forces sociales, nous allons nous mobiliser eh bien, pour faire en sorte que cela n'arrive pas. voilà ci wolof man maa ngi tudd Ndongo Sarr man maa secrétaire général national wu syndicat bi ñuy wax CUSEMS donc man la suma ay ñooñ désigné pour que ma coordonné syndicat d'enseignants yi nga xam ni dañu sóobu ci xeex bii nga xam ni du xeexu jàngalekat yi kese xeexu ñëpp ñi nekk ci société bi la ndax nag sànq professeur kër Gueye mi ngi ko doon wax ni pesum kanam boroom moo koy fajal boppam li xew ci réew mi ñëpp ko ñaawul ndax nag président de la république boo xam ni Sénégal yi ñoom ñoo ko tànn fal ko jox ko deux mu dem ba nga xam ne dara desul lu dul moom mu jeexal ayam organiser ay élections yu transparente Sénégal yi tànn ki leen soob pour mu jiite réew mi mu jël décret boo xam ne bii dafa bëgg a dàq élections yi alors que loolu constitution mayewu ko loolu ñun syndicat jàngalekat dañ jàpp ni coup d'état institutionnel la et loolu kenn mënu ko nangu moo tax ñun ñoo ngi organiser wu suñu secteur mais ñoo ngi organiser wu également ak yeneen i acteurs donc dans d'autres secteur de la société pour que ensemble eh ñu xeex loolu def de sorte que élection yi nga xam ne dañ ko waroon tenir le vingt cinq février donc ñu tenir que Sénégal yi tànn ku leen sopp eh mu jiite waaw donc ñun si plan d'action bi nga xam ni moom la ñu bëgg a dérouler tey jii si ngoon dañu woote réunion syndicat jàngalekat yëpp ñu tase si siège u CUSEMS bu nekk ci cité Soprim à partir de 15 heures mais dès demain mhm. dañu jàpp ni ci Sénégal yëpp ak bépp ordre d'enseignement bu mu mën a doon muy préscolaire ba supérieur dañu bëgg jàngalekat fu mu nekk su 10 heures jotee mu dakkal jàng bi mooy li tubaab di wax débrayage maintenant dina am benn plan d'action boo xam ni c'est clair que dina génn ci waxtaan yi nga xam ni daañ ko am tey ci ngoon bu boobaa daañ leen ci informer ngeen xam semaine bi nga xam ni si la ñu jëm anna lan la ñuy dérouler comme action pour que xeex bi jël de l'ampleur parce que dañuy door rek mais en réalité fi mu nekk nii fi ñu jëm foofu su gars yi delluwul ginnaaw foofu la mbir yi di gën a mel mm-hmm. ñun nag bëgguñu ñu egg foofu su doon suñu sago mm-hmm.